la Queen naka mu. ça va. ci jàmm sant yàlla bu baax. clip bi nga génne tey laa lay njëkk a laaj. Mhm. lu tax Saint-Valentin mi nga xaar ko. Mhm. ak te mu clip bi lan la. waaw baal ma rek wayu mbëggeel la donc <laughs> xam nga bëgg dafa metti te ku la bëgg ba gëmewu la rek amoo fayam mhm. donc moo waral baal ma daal ñu maye ko kaddu tey ci Saint-Valentin bi hmm? gars yi di ko enjoy daal. gis la beneen facette bii da nga fecc ci clip bi. est-ce que nan la nan lu tax nga changé pensée. ah dama mën fecc sax de <laughs> man fecc kat la <laughs> waaw waaw maa xam nga rek chaque clip ak lu mu laaj boo xoolee morceau bi dafa dafa rythmique xam nga dafa dansant donc euh, fallait que ñu fecc aussi daal. waaw ah, te te te te danse ak euh, chorégraphie ak ak euh, musique ñoo ànd ah, ci musique la bokk donc day rafetal affaire yi rafetal clip xam nga donc moo tax ñu def ko lu mu laaj rek dañ ko ko jox daal. ci ban album lay bokk wala prochain album bi wala benn extrait single waa waaw extrait ci puissance 4 bi incha allah la nar bokk mooy premier single puissance 4 bi tey yeneen yu gën a dóob ñi gi ñëw waaw. artiste duñ la faral di invité Grand Théâtre doo tax tey nga ñëwal Maabo. waaw Maabo nag euh, dañu am relation bu xaw spéciale surtout No Face <laughs> ak soxnaam su baax soo si di Mia mais man No Face moom. c'est un frère c'est un ami yàgg nañ ci liggéey boo xoolee sama titre c'est la vie moom moo composé kii bi musique bi donc euh, franchement ak euh, doy na donc liggéey na sax ci sama album maak moom yaay ñuy liggéey te ay à part ça on a des des relations vraiment particulières comme un frère e et une sœur donc on entretient de très bons rapports donc mu woo ma nag ma bàyyi lépp li ma jàppoon ñëw jàppale leen ndax xam naa ni bisu Mabo moom sama bés la. doo ñëwal ñeneen artistes yi ngay ñëwal ma si ah man man ku ma invité ma ñëwal la. <laughs> ñu doon doon ñu loon bu ma dugal nag wax dëgg fa yàlla récemment rek maa ngi demal sama frère yi Akhlou Brick donc man euh, su ma fi fekkee bu ñu ma invité mu fekk maa ngi Sénégal damay dem parce que showbiz bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci mën a jàppale sa moroom rek danga koy def waaw loolu. Grand kañ la. incha allah jël nañ date signé nañ contrat yi. Euh, may leen ma tuuti ma annoncé leen date bi waaw waaw bëgg naa ko annoncé ci beneen anam daal ñëw dugal yëpp gaa yëpp yëg ko après ma woo leen wax leen ko mais incha allah yàggatul. ndax sa valentin. <laughs> sama valentin mi ngi <laughs>